asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen bokki groupe akadimiyatu tasawuf ñu ngi nuyu yéen ñëpp di leen baalu xaq léegi ñu kon fi ñemoon ci téere tawxid bi dalilu saari ila tawxidil malikil bari bu seen abbas al attijaani ñi ngi tolloon ci bunt bi nga xam ni mooy wax ci jëmmi suñu borom ji melul na dara dara it melul na moom te yàlla bur yàlla kenn mënu koo peeg ci xam-xam من خول الجنيد العارف اللواه عليه أفضل الصلاة الله آه. نينا خول الجنيد وهو إمام الجنيد إمام الجنيد من خمني مموي نجيتل طائفة التصوف موضح أسكن أسكنلي maanaam wàllu tasawuf waaye tasawuf nag bu yàggee imaam jundi moo ko fi indi tasawuf mu nga jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tasawuf mu nga jóge ci maam aadama mooy nooy sell sa diine diine ju sell na mu gën a selle loolu ci yonent bi dañ ko jëlee loolu mooy tasawuf imaamu jundi nag moom mooy ki njëkk nag bind téere wane tasawuf ni mu dëppoo ak alquran ak sunna moo tax ñu ko koy askanele al aarifi ka nga xam ne aarif la aji xàmmee la aji xamee la ci boromam al awaahi di kon bokk na ci melokaan nit yàlla yi dénga al awaah dafa am benn waay boo xam ne day bu dee zikar du mën a téye boppam day wax ca kaw gaa yi saaba yi nag am ñu ko wax naan te moo wàcce baatam yonent bi ni bàyyi leen ko fa innahu awwah loolu ma maqaama la moo tax mboolem maqaam yi ñu wax yëpp mi ngi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saaba yi mboolem nit yàlla yi di wax gaa yi di ko yéem saaba yi wax nañ ko waaw ku ci am looy sikki sàkk nga xool téere bi wax allum maa dégg nga téere bi njëkk bi ñu tasawuf da gis yooyu yëpp da ko gis hmm. alayhi yàlla nekk ci moom afdalu salaatillahi ngën ji jullit suñu boroom xam nga wonk yooyu ñu nit yàlla di def te wonk ci wonk ci tur yàlla yi la bokk am na ko feebar di wonk rek gaa di ko bëgg a mun wàcce yonte ni bàyyi leen ko daawuhu ya innu bàyyi leen ko mu wonk ndax wonk kat ci tur yàlla yi la bokk loolu damay tooñ gaa yi yenn ibaadu yi ma leen loolu benn ibaadu mun ko firi waaw benn ibaadu muntu firi loolu loolu mooy wonk ci tur yàlla yi la loolu mu tasawufoon yi kese ñoo ko xam lisaakumu ngir loolu ngir loolu la seen xaala la wax rasulullahi ndawal yàlla bi laa yaarifu du xam al ilaahu buur yàlla mi ñi jaamu ca dëgg xayrullahi kudul yàlla rekk mi nga xam ni moo binte moom gis nga al ilaah ak allah bokkuñu danga gis ñuy jaawale naan ila allah mi ngi jóge ci waliha ak aliha fekk la ilaah ci boppam moo jóge foofu waaye allahu moom amul fu mu xare amul listiqaaq waaw léegi wane amul listiqaaq moom benn xaayida naxu nanguwu ko maanaam xaayida yi nga xam si ba eh, mu lay boo ko indee ci tey jii boo ci defoon munaada boo ko defee xarfu boo ko ci defoon xarfu boo ko defoon munaada def ci xarfu nida yaa allahu doo dagg alif ak laam gi te bu fekk tur wu mën a doon budul allahu boo ci defee xarfu nida da dagg eh, alif ak laam gi allahu moom juyuwul fenn moo tax allahu ñu dëgg dëgg tur allahu sax du arab hmm. waaw nee na yoon saa sama wax nag li saxabihi ñeel saxaabaam yi dafa ñëw fekk ay nit ñu dëdmu wolof nee na nag sikkim bu fekkee óom jaaxle am na mun leen bi ma tatafakkaruun ci li ngeen di xalaat gaa yi ni ko natafakkaru fillah dañuy xalaat ci yàlla mun leen laa bu leen xalaat ci yàlla yàlla kenn du xalaat ci moom boo de xalaat ci moom nga بل تفكروا خلات لين خلم لين في مخلوقاته تي لم بند نخ لان موي خلات موي سير العقل في المحسوسات الفكر هو سير العقل في المحسوسات لغنك <laughs> ما وراء الطور الحجاب نوكي خلات كل من هو خلات يوسف بابو دفنك ما وراء الطور الحجاب دق دق يو يو صح da nga def yow sa bopp lii tax ñu naan la yow sa xel jotuwu fa comme nag capacité boo yem boo xam ne mënoo ko dépassé moo tax yow kon ci mbindee fi rek li nga gis rek ci nga mën a xalaat mais mënoo koo xalaat la nga xam ne si dégg nga mënoo ko xel mën fa egg moo tax yàlla kenn du xalaat ci moom mun leen faatabiru na ngeen xalam aayaatihi ay kéemtaanam rek xaw mi yéen sami nit ay yaa xaw mi ولا تعتبروا بلن دي خرام نك بذاته تي جمم جه دغ دغ جم يالا جي كين تي خلات وخال وخنا ايضا بتاي من له كل شرف كان خامني نيل نكو بيب تيد نك صح صح صلى الله عليه وسلم من نفسه عرف ربه عرف واو من كيب كو خمسي عرف خمنا نفسه بوبم كيب كو خمسه بوب عرف دادي خم ci sababu xam gim xam boppam rabbuhu boroom bi bind alayhi yàlla nekk ci yonte bi salaa sallam afdalu salaatil baari ngeen ji jullik aji yett ji bur yàlla mi nga xam ci eh, mooy aji yett hmm. nee na maa sabbaxa mi ngi sabal al awaahu dégg nga wonko fil asxaari ca njël ya nit yàlla day zikkar ba njël ñu tiit lool jàq lool ànd ak li ñu fanaan jaamu yàlla yépp ñuy jégg seen istixfar di jéggalu seen borom di sàbbaal hmm. gaa yi yàlla yaa ngi noonu mooy ñi nga xam ne si tey màggal guddi yi ay muy firi nag xadi loolu wax jooju mu ni ay ay man arafa li nafsihi bil iftiqaar wa binnaqaaisi wa zullin wa saxaar ay man ay firi loolu man képp koo xam ne arafa xam na li nafsihi ci boppam bi ci xaar ci aajo xam boo xamee ni yow da nga ñàkk am soxla am aajo wa binnaqaaisi ak nga xam sa bopp yow ay wàññeeku wàññeeku kese nga sa dara matul yaa ngi ci ak doyadi ak wàññeeku wàññeeku wa zullin ak ci toroxte wa saxaarin ak ci ndawe ak ci doyadi moo tax ñu ne maqaamul abdi maqaamay jaam ci yàlla mooy lan zullun wala wala iftixaar rek waaw torox rek toroxlu wàcc sa bopp dégg nga ak di soxlawoo sa yërmande sa borom toroxte rek maanaam ak dam mokk mokklu ak wàcce sa bopp la mooy ma ci ngay amee dara ci yàlla waaye ku yëkkati sa bopp yàlla wàccee la jambidu dara moto kepp ko wote makkama denga marde tali te fekk langa wote amoko yow lolo doto ko am doto ko am ba mukk kepp ku yëkkati boppam dafa suufee bokkuta nag liñ ti yàlla yi ñoom di wax di wax seeni may leen yàlla defal te xaddusan bi ni'matillaahi ngir waxtaane xéewal yàlla yi loolu ci sant yàlla bokk te it waxat nafa mu dàq al izza tedd nga mu xam ni moom amul tedd nga wal iqtidaar amul it kàttan mën a fi def dara nga xam ni yow yow amoo benn tedd nga ak di képp ak lottu képp moo nekk ci yow boo xamee loolu anha ci moom ci ay ci melokaan ci boppam la mastabsaraha ba mu ko sàkkoo gis istibsaran ak gis maanaam ci booba nag ci ngay am basira nag soogu e, soog koo mën a gis nag ndeke kon boo wàccee sa bopp rek toroxlu rek mooy yoon wi yu ngi tax ngay am cër ci yàlla su boobaa nag ci ngay soog a xam sa borom nag arafahu nga xaw soog a xam waaye su yëkkati sa bopp rek daaj di alku arafahu mu xam boromam muttasifal kamaali muy aji taqoo ak mat mun faridan di aji wéetoo bil azzi te tedd ak jafe wal jamaali di wéetoo ak taar su boobaa ngay xam sa boroom rabban boroom la boo xam ni munazzahan ku ñu sellal la ani zawaali ci dañ yàlla du dañ du fi jug ba mukk musta dañ lam yëzal wala yazaalu musta dañ di am te du dañ di am waaw mu ngi fépp ci jëmmam ak ci meloom du déplacé du toxu wa an taxayurin ku ñu sellal la an walif di soppeeku yàlla du soppeeku ni mel rek la mel noonu hmm. anil axwaali ci ay xaal jóge ci état bi dem ci bee loolu du dal yàlla yàlla moom mbindeef mooy soppeeku nekk ndaw nekkoon ndox ba ndoxum ma niiw jóge fa nekk lumb deret di dem étape par étape am ay suux ba mujj jëmm ja mat mu génn nekk xale di màgg di dem noonu loolu du dal yàlla waaw ndaw nekk na yaa ngi commencé di màggat di wàññeeku sa doole di wàññeeku sa man-man di wàññeeku loolu dal yàlla yàlla moom du soppeeku ni mel la mel wa mutaaliyan an il ayni wa anil wa an al kayfi wal wa tashbihi an mutaaliyan moom aji ëppante la moom suñu boroom anil ay ni wëlif ñu naan ana anamu na laahu kenn du ko wax wa aynil kayfi ëppante nag ñu koy wax moom yàlla al kayfi naka la nu mu demee nu mu mel wal misaal yi wal ñu ko mooy uutal ay misaal moo tax suñu boroom wax ni fala tadribuhu lillahi lamsaal yàlla kenn du ko wutal misaal moom mooy wutal misaal boppam fala tadribuhu li fala tadribu lillahi lamthal moo tax yàlla kenn du kaf ak moom yàlla nanguwul kuy kaf ak moom hmm. yàlla doomu bàjjenu kenn ba bay da gis ñoo xam ne nag ci ak réer daanu dem di me di kafa di kaf jëme ko ci yàlla te loolu ko def loolu mën na laa génne ci islaam yàlla kenn du kaf ak moom waaw kenn du jëme ay kaf dafa sacré di ko jëme ci yàlla alxuraan mbiru yàlla yi sax kenn du ci kaf waxumaak nag ak diine yàlla ji ak yonent yi waxumaak nag yàlla suñu borom joxam wal misaal wa tash wa an wa ani tashbihi ëppante nag tamit ñu koy nurale ak dara moo xam ci jëmm moo ci melo moo xam ci jëf wa hakaza naka noonu wa naka nii ma waxe fassarahu la firee wax jooju tataa'i tataa'i noonu la ko firee ñaan titaa'i tataa'i jazaahu yàlla na ko fay rabbi sama borom afdalal afdalal jazaa'i ngën ji pay na nga xam ni daal wal arshu aras li muy rëy rëy rëy wal kursi yu ak kursi yu li muy rëy rëy rëy kazaaka naka noonu alxalamu xalimab dogalu suñ borom ba wal lawxu ak lawxul maxfuuz maakaha ak lu mel ni ki ñoom ci asamaan yeeg yi nekk suuf ak yi nekk seen diggante wa maa laa naalamu ak lu ñu xamul nanga xam ni yépp ay mbindeef lañu xalaqaha bu yàlla bind na ko li xikmatin ngir xekk xikma laxtiyaajin du jaagéeni am ci aaju yàlla am amul aaju moo tax jëfi yàlla kenn du ko firi kenn du ko wutal al la ci jëfi yàlla yàlla ay jëfam amul illa amul cause al illatu wal maalul dégg nga loolu mbindeef lay dal yàlla ay jëfam daara taxul mu def ko amu ci benn aajo xekk ma moo tax mu mu di ko def hmm. moo tax bul baas mu réer mi mu wax naan dégg nga Muhammad Busiri wax ji mu wax ni wa min ulumika ilmul lawxi wal qalami yoon saa sam bokk na ci sa xam-xam علم اللوح تصح مام محمد بوزي لي مو غنا كرا مام لم صح نيم فيلي محمد بوزي فني يونت بي صاحب بوكنا تي لين تي سا خام خام خام المحفوظ موني كون محمد بوزي دي بوكالي ندخ بو فيك يونت مو خام خام خام اللوح المحفوظ لي يالا دي خام كوكو موم ييفير لا موم موم مي جيل خام ديكو تك ديكو ديكو تك تي اك ديكو تاو تي المحفوظ وياز بالله maari ta lawal mahfuz maxluux la dañ ko bind la fa nekk dañ ko fa def bu fekkee yàlla loolu la xam xanaa kon yàlla kon bindeef la gis nga ñoom dañuy woote ak tawxid di bëgg a dugal kee ci shirk te fekk moom mooy shirk mushrik bu mag bi moom waaw bun baas moo ci bind téere di ko wax te fekk na ñoom xamuñu dara amuñu tawxid loolu ndax yonent bi saa sam dënn yonent bi mooy lawxul mahfuz bu mag bi te loolu alquran la wa kulla shay'in ahsaynaahu fii imaamin mubin suñ boroom ne ne lépp kulla shay'in lépp luy shay'u rek lu am rek ahsaynaahu tënk nañu ko ñu buur yàlla fii imaamin mubin ci imaamin mubin te ñépp boroom xam-xam yi li ñu firi imaamin mubin mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dënn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lawxul mahfuus bu mag bi moo tax mu ni ko bokk na ci sa xam-xam lenn bokk na ci sa lenn ci sa xam-xam xam-xamu lawxul mahfuus yonent bi mooy ki peeg mbooleem xam-xam ya jiitu ak yu mujj yu aju ci alaaxira secret yeeg xaqaayiq yi mbóoj yeeg lépp la peeg moom moo tax muñ ko làkka zaatul ulumi min aalimil xaybi wa min haali jëmmi xam-xam la am sallallahu alayhi wa boo ko te bindee fi mu ne suñ borom nag yooyu yépp nag moo leen bind waaye xekke ma moo tax mu bind ko waaye laxti yaajin du jàggi ni am ca aajo xusha na nga jàpp lii leeral bi ak faran fàcc bi bi xuwatin ci fulla ak fayda waaw nga jàpp ci te wéy wa xalli te nga wàcc zal liawi jaaj la nga xam ni aji dëng la te mooy wax leneen lu dul lii ku wax na yàlla lim bind ci am aajo ba ñu ak yàlla mbindeef maar de taali loolu ak kéefar la yan ci yàlla musal dañu taxaw foofu ngeen baañaax asalaamaaleykum wa rahmatullah